asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum Fall 94 Walf Sénégal dellu si na di leen siyaar di siyaare mboolem koy topp Fall 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yi nga xam dañ leen koy defal saa su ci réew mi ak bitim réew jaajëfal nañ leen siyaar nañ leen waaye leen di topp Fall 94 Walf euh, Sénégal seen actualité li xew ci bis bi xam ngeen ko chaque jour ñu leen koy indil ci tableau bii voilà technicien sunu technicien bi dañu tegal fii foote yi voilà kon yaakaar naa ne sunu actualité tey dina ñëw ci Aliou Cissé Aliou Cissé nag mooy entraîneuru Sénégal bi tànn na nag ay joueurs pour waajal euh, CAN 2024 fële ca Côte d'Ivoire dinañ ci ñëw voilà dinañ ñëw ci benn booy boo xam ne daal xamoon nañ ko ci benn parti boo xam ne nii ca jamonoy Abdoulaye Wade muy Masale masala loxo ba Masale en daal gis nañ ko. mu tiim xaaj bu bari di baatare di joxe ñu bari nag nee nañ xaalis bi da koo àbbu dinañ ci ñëw voilà danañ ñëw tamit ci euh, walla euh, ayub defe ayub defe ak euh, kii nga xam ne moo di avocat Ousmane Sonko bi yaakaar naa ne ba tey rek ñoom ñi ngi topp mbir yi voilà ayub defe nag mi ngi dalal xel yi ñi ànd ak Ousmane Sonko dinañ ci ñëw voilà xam naa ne kon loolu la leen si résumé ngeen baal ma. xam naa ne kon loolu lañ fi loolu lañ leen fi résumé euh, indil leen ko ci tableau bi ngeen xam voilà voilà su ko defee rek sunu technicien nag nga indil ñu Aliou Cissé Aliou Cissé nag xam ngeen ko mooy euh, entraîneur équipe nationale bu Sénégal wax dëgg yàlla convaincu na ñi nga xam ne nii am na ci ñoom yaakaar euh, maanaam daal jël na ay joueuram yi nga xam ne dañuy dem fële na le ca kaan ba. Euh, euh, mu nekk nag loo xam ni wax dëgg yàlla ñëpp rafetlu nañ ko macha allah euh, critique bi moom tey xam naa ni wax dëgg yàlla man gisuma tey fu ñu koy critiquer daal wax dëgg yàlla tey moom ah xëy na nag xam nga gars yi moom yaa ma gën a xam Aliou Cissé moom foo jaar rek mu am ay critique mais noonu la moom nangu na critique quoi man moom loolu seetlu naa ko ci Aliou Cissé daal vraiment wax dëgg yàlla entraîneur boobu noonu soxla Sénégal mu nekk tubaab nee ko su dañuy gëm suñu dañoo gëm suñu bopp der bu ñuul moo nu yor ba ñu jël coupe d'Afrique ay tubaab yu baree baree baree bari yor nañu mënuñoo fexe ba jël coupe d'Afrique tubaab bu fi jaar lekk suñu xaalis nax ñu yóbbu suñu équipe nationale bu leen ci yàlla xiiree sax bu ñu essayé duñ jaaraat fii ci Sénégal dañuy dellu te xaalis boo leen fay seen réew yi lañ koy defaree Aliou Cissé mii yor équipe bi euh, jëlal ñu coupe d'Afrique yaa ngi dégg critique yi mënta ñàkk moom da koy nungoo ab sénégalais la ab africain la jàmbaar la. ci meilleur entraîneur yi la bokk nañ ko fi bàyyi Sénégalais yi ñoo bëgg changé kenn du ko fi changé entraîneur boobu noonu di wax naan daa bëgg yor Sénégal doonu tubaab nee na xaar Sénégal moom ñi ko soxla daa bari waaye Aliou Cissé mi ko yor baax na voilà Aliou Cissé li man ci équipe bi gisuma tubaab sax bu ko fi man bu nu sonal kenn loo ko fay ci dëkk bi la koy defaat demul dëkkul ay France dëkkul fenn ci dëkk bii la dëkk lépp loo ko fay ci ay millions ci dëkk bi la koy delloowaat bu ñu sonal waay loolu football moo demee noonu football moom dafay ànd ak critique football moo baaxoo noonu bépp sport bu nekk rek dafay ànd ak critique voilà nga jiitu taxul nga gën a xam gars yi non gars yi dañ def seen waaye nag lii ñu bëgg a def di xam nga nekk ci nit ki di wax pour waaw non loolu moom sa waay Sénégal kii entraîneur la boo xam il est maire fii ci Sénégal mooy maire convoqué na nag ay joueur ñu ngi waajal 2024 nañ ko def nañ ko daan defee ñaanal leen topp ci seen ginnaaw supporter leen ñu jëlaat kaan bi parce que tamit mi ngi suñuy loxo voilà dafa neex tey jii bu ñu demee wàcc Côte d'Ivoire ñu naan champion Afrique champion Afrique champion Afrique man li ma ci gën neex man bi ñu nekkee ci ñag yi ñag yi daw ñu may jàmm <laughs> Mor Ngom mi nekk Côte d'Ivoire xam na ci dara bi ñu nekkee Abidjan gars yi dañ ñu daan sonal laa la wax ñag yi bu ñu demee di football ak ñoom dañ ñuy dañ ñuy sonal naan yéen bàyyi man ngeen a football ngeen lépp waaye du jël coupe boobu waaw c'est normal parce que équipe yu baax la ñu am waaye mënuñoo fexe fexe fexe rek ba fóon coupe bi rek wala ba jël coupe bi tey nag yàlla def ab der bu ñuul sunu doomu réew ñëw porté coupe euh, équipe bi yóbbu ko jël coupe bi indi ko nga xam ne léegi ñag yi dañoo may jàmm bu <laughs> ne jël nañ ko ñu ne ñu ne jël nañ ko voilà kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax kon Aliou sa daal mi ngi noonu nekk euh, entraîneur boo xam ne daal convoqué na ñi nga xam ne nii jël na leen pour yóbbu leen fële na leen ca Côte d'Ivoire. yàlla na yàlla may ko ndam nañu topp ci seen ginnaaw rek supporté leen saa su nekk rek voilà euh, yaakaar naa ne kon Aliou Cissé ngi noonu voilà. beneen bi ci des tamit ñu ñëw ci euh, beneen bi ci des tamit ñu ñëw ci euh, masala masala nag gis nañ ko benn benn xale bu góor la wala maanaam mën naa ni benn benn politicien la woon ci jamonoy Ablaye Wade masale masale kay xam ngeen ko. moom na gis nañ xaalis bu baree bari yor na ko di ko tasaare daal di ko joxe waaye ndax xam na dëgg dëgg dëgg dëgg ñu bari nag di wax ni maanaam masale mii xaalis bii mu yor nii est-ce que moom moo ko moom parce que tamit attention mooy la ma waxoon rek man ay jamono nee naa leen fii sénégalais yi dafa tun te fii dafa am ñoo xam ne ni post boo mos a rek am na ñu lu ko dàq occupé fuuf ëppale ci xam-xam ëppale ci njàng gën la cee muus waaye nag xam nga euh, Sénégal moom ni ñuy fale ñëpp a ko xam man bu ma neexee ma nekk ci quartier occupé quartier bi yëpp feexe ndax xam naa système yi fi muy jaar fépp feexe ba maanaam foofu yëpp maa koy occupé lu ma bëgg am ko ci ñoom luñ soxla ma defal leen ko yaa ngi dégg bu gaa yi soxlaa mbooloo ma ñëw taxaw voilà lu ñu soxla man danaa ko jëlee indil leen ko. léegi nag suñu demee ba war a fal ma ne ah maa ngi nii de doon naa leen jàppale fee te fekk lañ may fale man du njàng mi du xam-xam bi du image bi du dara après ñu fal ma nag bu ko defee nag wala ma am tur defee ñu may jaba jome te fekk dara xaw ko ñu ma ëpp njàng ëpp ma xam-xam fuuf que bi ma yor mën nañ koo yor voilà loolu te loolu yaakaar naa des na tuuti day deñ ci Sénégal voilà lii moo def nii nag yaakaar naa ne am na ñoo xam toog nañ wéet jooy xam nañ ni kii li muy def nii dafa xeebu dafa xale daal dafa xale voilà dafa am yéen da ngeen amoon ay post yoo xam ni dafa baaxoon ci yéen ngeen waroon a profité foofu noonu créer ay entreprise walla créer ay tool mais yor xaalis bu toll nii du voilà di ko di ko joxe xam naa ne bariwul sax moom bariwul di ko joxe ngir la ñu jaarale ko sutur voilà li saa njóogu wax rek. dañuy fekk ka nga xam ne nii moo ci gën a yeewediku maanaam yiwu daal ñu jaarale mbir mi ci moom voilà xam nga dañoo jël xaaj bu bari jox ko koo xam ne jaarale ko ci koo xam ne nii dafa yeewu loolu lañ jàpp mais ñi lii ku yeewu fii ak jamono fii jamono toll boo ko defee nit ñi xooluñu loolu ndax yaakaar naa xale bi la gën a ndaw wala xale bi nag gën a tuuti musta occupé benn poste denc na lu ëpp lii ngay joxe wala joxe na lu ëpp lii ngay joxe te caméra caméra caméra ñëwul wala micro ñëwul voilà kon dafa am loo xam ne nii bu ñu doxalee tuuti ci kanam rek yéen ñépp waaye nag benn mag doon na wax loo xam ne nee na ab buur moom bu ñëwee ba war a wàcc di dem dana am ñum yóbbaale ngelawaay ngelawaay ñun li ñuy ñaan wala boog ñu bari li ñuy ñaan mooy dafa am ñoo xam ne nii nañ leen identifier xam ne ne wax dëgg yàlla sepp seen loxo ci ndab li daa jot sëkk parce que amul dara amul benn njariñ réew mi wax dëgg yàlla amul njariñ daal ci réew mi lii ñuy def nii ñu bari mën nañ ko mais duñ ko def gis nga Sénégal am na ay millionnaire ay milliardaires ay xale yu ndaw gëm seen bopp di business di liggéey nekkoon ci ci gouvernement de am xaalis mën a def lu nit def waaye duñ ko def parce que ñoom li ñuy soxla mooy ay xale lañ dañoo war a créer ay entreprise dañoo war a euh, créer ay employés foofu la àdduna bi toll voilà di jéem a développer ñoom foofu lañu toll waaye toog sa waay ñu xel moo tax billaay non mbir mi nekkul ci ay costume nekkul ci ay seet xëbër xëbër wax ju bari nekkul foofu de <laughs> mbir mi fi mu nekk mooy lu sew la benn sew-sew bu ndaw boo xam mi ngi ci réew mi looy dépp looy jaay rek wala image lu mu mën a doon rek am na ku ko yor sa ni dégg rek di la bàyyi di la xool ñu lay xool di la déglu ba xam yow lan nga li ngay am na lu ñu la ci ëpp xam-xam poste bi nga doon occupé am ñu la fi ëppoon voilà loolu ñàkk nga ko sax ndax yaakaar na ne voilà waaye faaw ngeen yuuxu ndax da ngeen a tàmm loo xam ne nii loolu da ngeen a jàpp ne loolu day way te loolu day jeex léegi léegi léegi léegi kay boo wuti xam-xam te xool ni nga nan ngay pratiquer sa xam-xam te xam baax baax fi ngay jaar askan wi nga génération lool mais li amoon yaakaar naa ne des na ci kanam tuuti da ngeen day yéex de voilà kon loolu gis nañ ko ci image yi ñu baree baree nag Sénégalais yi baree baree ñu ngi koy naqarlu di ko ñaawlu ñenn ñi naan waaw da ko àbb ñenn ñi dañ ko ko abal ñenn ñi dañ ko jox xaalis bi maanaam yorutul xaalis bi muy passé passé voilà mu nekk loog loo xam ni mën naa losi ndax ku liggéeyul defu dara xamoo luy pasoom xamoo dara ah astafurlah en tout cas daal xam naa ne daal mi ngi noonu daal gis nañ ko ma ngay baatare yu kenn xamul waaye daal nit ñi daal ñooy wax nee nañ daal moomu ko la ko voilà da ko àbb wala àbbu ko nag voilà en tout cas daal teg lu wóor ci xam-xam loolu daal dara gënu ko euh, neex voilà beneen bi ci des tamit moo di ayib defe waaw ayib defe gis nañ ko ak euh, kii nga xam ni moo di avocat Ousmane Sonko bi voilà ba tey rek ñu ngi topp mbir yi ñoom moom xam nga saa su nekk rek li ñu leen dénk dañ koy matale voilà avocat dëgg ngi nii wax dëgg yàlla avocat la nag ñëpp ko mën a jël voilà waaye daal xam naa ne avocat dëgg la bu mën a sonn ci ci ci ci ci ay mbir voilà te loolu wax dëgg yàlla vraiment wane na ko ay defet tamit voilà yuen leen yéeg ñi ko doyloo woon yëpp voilà parce que lépp mu ngi ko doon leeral teg ko ci loo xam depuis ba mu ciy dox ba léegi léegi lan moo ci des Sénégal dañ ko bokk ay waay nañu bokk ndey bokk bàyyi di xàccandoo di dóorandoo nañu liggéey sunu Sénégal élection 2024 la ñu jëm lii yaakaar naa ne bu ko Senghor defoon bu ko Abdou Diouf defoon bu ko Abdoulaye Wade defoon ndax kon tey réew mi heure bi voilà maanaam li ñu xam mooy sénégalais yi mooy kenn ku nekk boo waree bokk lan lay laaj matal nga ko bokkal léegi ñun sénégalais yi ñooy arbitre voilà nañ ko xamee woon mille 2024 bu ñëwee ñu sañse ba rafet dem wote kenn ku nekk kala doy nga woteel ko ku ëppale ay carte jël réew mi bu ko defee nag yow ci sa jëm bopp nga woote woo ñëpp ku jege ñu nga doon xëccoo ak ñëpp kaay li ñu liggéey réew mi dafa jot réew mi dafa tardé wax dëgg yàlla dafa tardé yéen xam ngeen ne réew mi dafa tardé réew moo xam ne réew yi jiitu woon yëpp romb nañ ko di wéy xam ngeen loolu tamit wax dëgg yàlla nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax àdduna amul solo àdduna continué la ñun ñii ñëpp te ji ku ci dundaat cinquante ans pare ci àdduna cinquante ans rek ku ko ci dundaat pare nga ci àdduna bar waxi bar sàq kay ngay wax wax waxi àdduna jeex na parce que lu neex dootul dalay sàppi dootoo ko bëgg col gu rafet dootoo ko bëgg ab oto lu ma gën rafet rek dootoo ko bëgg kër gu rafet dootoo ko bëgg xaay maanaam adduna boobu nga doon xëccoo da nga ciy doyal sëkk ndax xam nga ne yow maanaam si fi ni jeex na voilà mbir mi nekk continuer nag say doom say sët ñëw waa su ko defee lii dafa nekk loo xam ne nii wax dëgg yàlla koo koy xalaat daanaka mën naa ne yenn yi du la jaral yenn yi voilà gis nañ fi ku nekk adduna nag maanaam boot dina ku nekk boot na ku nekkit suuf si tey ji kenn ku nekk ngi ci biiram ku nu gënoon a naw ci ay boroomi garaat ku nu gënoon a naw ci alal ku nu gënoon a naw ci ay passeport yi diplomate dem ci ay réew di tukkee ko ñëw mi ngi ci biir suuf si tëdd di xaare kan lan moo ko fi jar lan Sénégal continué leen ngir yàlla nañu jéem góor góorgóorlu waay 94 Walf Sénégal daal lii leen lool ci li nga xam ne nii moom lañ leen doon tegal ci euh, table bi muy seen actualité